nee na di leen sant rek. xam ne tey moom. bisu fay la. bisub fay la. mel ne ku liggéey ba weer dee. ñu di la fay. ñu di la fay. Serigne Touba dafa liggéeyal yonent bi. Serigne liggéeyal sunu borom tabaaraka wa taala. dundam nag. ngirug dundam gépp nag. ba 1902. ba musta yendu benn bëccëg. boo xam ne am na ci mbég. 24 sur 24. tubaab yi dañ doon fexe lu fi jëlee bakkanam. ba bi mu ñëwee fii. ba bi mu ñëwee Daaru Salaam yendu fi. keroog la masa am mbég. mbég moomu nag. ak la mu doon liggéeyal sunu boroom sunu boroom di ko fay. ca loolee rek lañ leen di fay yéen fay nañ ci seeni i waajur yéen it nag yàlla bu leen ci kenn ëppale ndax def ngeen loo xam ne seen waajur yéene woon na ko di ñëw nii di fekke màggal gi wala ñu ñëw yendu ci suufu daaru fàttale ko jàpp gi ñu jàppoon maam Cheikh Anta jàpp gi ñu jàppoon seriñ Touba ak ñibbisi gi nag gi Serigne Touba ñibbisi woon loolu yéen la ko yàlla jagleel waaye nag li leen ci suñ borom di fay de day dem ba ci seeni maam ak seeni maamaat yàlla na ko yàlla def yàlla na ko yàlla def li ngeen def nii jihaat la ndax taale sa oto ndakaaru ba Cees topp autoroute bi xamoo lu la ciy fekk def ci li nga ci war a def lépp ngir yàlla ngir dem ci bisub yàlla amoon ngeen yeneen yitte waaye nag bàyyi gi ngeen ko bàyyi sëñ boroom faw mu jëflante ci ak yéen. day mel na ñu àndoon ak doon jihaad ngir taxawal lislaam yéen itam da di jihaad ngir taxawal lislaam rek ya kon nag yal na leen suñu boroom fay lu kawe seen jot ci barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa barkeb Serigne Touba barkeb maam Cheikh Anta barkeb Cheikh Modou Rokhaya jërë ngeen jëf ñu muy njabootu alaaji sëriñ Diagne nee na dem ak jàmm àgg ak jàmm. ñi def màggal Daaru Salaam daf fekkoon ñu nekk ci ay mbiru assemblée ay situation bi xawoon doy waar tuuti dëkk bi xawoon yëngu tuuti tamit euh, ma ne euh, suñu Mor Gueye na la woo pour nga waxal ñu sëriñ bi ne bu lu. mel noonu amee bu tourné gisuma rek dafa am lu tax parce que sëriñ bi fi ma ko teg yàlla moo ko xam euh, sama xarit la sama wóllëre la euh, sama frère la sama sëriñ la tamit sama conseiller spirituel la euh, chaque fois que ma soxla nekk ci yenn situation yi walla ma soxla ku la yedd walla ku la xelal xam naa bu ma ko wooyee dinaa ci am li ma li ma li ma soxla dinaa ci am information yi ma soxla te dinaa ci am ay conseils yi ma soxla euh, mosuma am sëriñ boo xam ne dañuy taxaw naan euh, doomu ndey lañu moo ak moom doomu ndey lañu euh, vraiment yàlla def na ko sama xol yàlla def ma ci xolam ce qui fait que bu ma ñëwee fii mbégte laa fii ñëwee te toujours bu ma fiy jógee damay ànd ak sax xol bi day fees parce que Euh, ñu mel ni Sénégal dafa jafe léegi euh, <laughs> Serigne Cheikh si Sy euh, Al mu ne Sénégal li ma jaaxal léegi mu ne Serigne yee ëpp taalibe yi <laughs> après mu ne leader politique yi ñoo ëpp militant yi donc réew mi doy na waar mais xam nga donc pour nga am koo xam ne jàppe nga ko ne sa sëriñ la dalay won yoon ci diine ba pare nag di la jokkale ak suñu maam sëñ Touba 1997 laa bindoon benn article boo xam ne temps yi maa ngi koy wër euh, ba ñuy célébrer euh, retouru sëñ Touba exil je crois quatre-vingt-dixième anniversaire la woon wala quelque chose comme ça ma bind article bu tudd dellu di ko tiitaroo ma wax man li ma xalaat ci sëñ Touba un géant du vingtième siècle koo xam ne li mu def pour siggil nit ku ñuul siggil africain ba pare wan ñu ne kenn ëpp ñu ci diine kenn gënuñu jege yàlla ñun nit ñuul ñi ñun africains yi mu am moom dignité ak euh, maîtriser alxuraan maîtriser islaam maîtriser diine ba jaaxal àdduna bi yëpp tubaab bi sonal ko lool mu boole ci toujours nag dignité ba yàlla may ko li mu ko may nii sanq ñuy dugg ci oto bi doyen Diagne naan xoolal village bu ndaw bi euh, barke bi mu fi def ak ñaan yi mu fi def xoolal léegi presque euh, ci ville yi gën a mag ci Sénégal la bokk mu ne xam nga ne lii du nen ma ne ko loolu ñëpp ci ànd bépp doomu Sénégal sëñ Touba da koy tiitaroo dafa am lu mu liggéeyal réew mi ak lu mu liggéeyal boromam ak li mu defal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñu koy tuddee xaadim rasul donc loolu boo ñëwee fii Daaru Salaam sama mag di sama xarit di doyen Alioune Diagne nee ma li ngay wax yëpp boo demee Daaru Salaam rek yegg nga lépp a ngi foofu. ñëpp xam nag Touba fii dama fi bari ay xarit sëriñ Cheikh Say Mbacke. di suñu wëlër di suñu kilifa di sama papa di sama xarit. ak waa kër sëñ Souaïbou kër sëñ Abdoulahat léegi li yàlla def ba ñuy yegg si dafa am fu ñu escalon bu gàtt ñu fekk fa sëñ euh, Bass Abdou Khadre waxtaan ak moom bu baax mu mu dalal ñu dal bu rafet après jox ñu rendez-vous ne ma ne ko dañuy ñëwaat ñu toog gën a waxtaan parce que moom. frère la xarit la porte-parole la. jox ñu may ñu cër boobu. ñu pare ci loolu dem nuyu. sama mag dem jaale ji ko sëñ Abo Mbàkke mu wax fa wax ju rafet joo xam ne nee na fépp moom fu ñu ko wooyee dina ne bu ñu ubbee xolam Cheikh Tidiane Gadio ngi si comme sama frère bi xam ne maa moom yàgg nañu waxtaan loolu Serigne Cheikh Anta xam naa ne maa ngi ci xolam xam na ne maa ngi sama euh, mi sama xol donc fii li ma fi li ma fi sëñ Touba may fii ci Touba dafa bare dafa rëy te sàgganewu ma ko te foyewu ma ko te kafewu ko loolu nag boo ko boolee xam ne Sénégal benn bopp la benn bopp la euh, boo ñëwee Daaru Salaam nga am li nga fi soxla yëpp boo demee waa kër sëñ Suwaay bu nga am fa lu rëy. Mm. boo demee waa kër sëñ Fallou Mbacke suñu suñu kilifa yooyu yëpp nga am fa lu rëy wali yu bare yaa ngi fi ñaan a ngi fi. baati na ngi fi. Mm. te képp kuy doomu Sénégal boo xam ne sa mm. xel mi ngi fi mu war a nekk. sa xol mi ngi fi mu war a nekk. xam nga ne fii war nga fiy ñëw régulièrement man nag bu ma ñëwee ba toog sama waa ji di sama sëriñ di sama xarit dafay mel na mbir yi mot na mel na dem naa fépp Touba parce que ñëpp la bokkal boolee si nekk nit ku rafet xol bu sénégalais yi jox cër respecté ko fu ma nee Cheikh Anta Mbacké sama xarit la ñu ne ma am nga xarit bu baax am nga kilifa diine bu tey bu noppi boo xam ne nit ñëpp ko sopp